sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax euh, man su ma neexee ma ni sama mag laay nuyu walla sama baay wala sama sëriñ bu ma ci jëfandikoo rek day yell ndax xadara bii moom ñun sunu xadara la te moom mi may dégg xam na li may wax kon ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu daara ji yépp di la indil mbooleem nuyoo waa daara ji waaye bu ma nee waa daara ji nag ñu am ci mbokkum daara moo xam ni ñun daara moo ñu boole ak moom muy président Ousmane Sonko parce que ku nekk ak ni nga àndeek moom mais ñun dañoo jàpp ni sun mbokkum taalibe la ñuy jàppale ci daara ji ma ñëw teewal fi MODAP mouvement des doomu daara patriote waaye comme ni ñi ma jiitu waxee ànd ak waa magi Pastef yëpp man nañ ni tey li parti bi am wala ñi parti bi gën a fonk ñoo ñëw fii tey parce que ku xool jëmm ji Jibi Gueye Ndiaye foo gersoo di ko gis biram xujaloo ngi nii góor gi Mayaabee ngi nii le coordinateur du département de Tivaouane ñëw ci turu département bi ak délégation bi mu àndal man nag xëy na du ma matuma ci yow seede waaye mën naa fàttali rek tuuti ndax fi jamono toll dafa am léeg-léeg mbokk yi ñuy waxtaanal ñuy yéemu lool ci taxawaay yi nga am ci réew mi ma ni leen nag nit ñi xanaa dañoo gaaw a fàtte mais réew mi crise yi ñu fi dund yëpp moo xam crise politique la wala crise sociale ci xadara bii lañ ko regle fii di Aynu Maadi kon bu ñu nee Serigne Habib Sy di doom ci Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh ma nga ca Aynu Maadi réew mi toll ci jafe-jafe ak xat-xat mu génn def déclaration ubbi bopp gor ñëpp loolu li arab di wax ni la xarwa parce que li tubaab bi di wax na je parle en connaissance de cause réew mi mën nañ ni crise boo fi dégg bu la ko waxee ak bu la ko waxul li ko régle ci saal bii la jóge te loolu ñi xam réew mi te xamantuwuñ ko dina nangu li may wax crise Mauritanie ku ne xam na li ci góor gi daj crise Mamadou ja ak Senghor ku ne xam na lim ci daj ànd ko nawleem yim fi nekkandooloon muy Touba di Tiwaawan di Njaasaan ànd ko umma bi yëpp ba taxawu réew mi ba ñu dépassé crise boobu parce que àdduna dund ak crise ñoo ànd waaye crise na ku amul fit amoo ngor mënoo ko résoudre parce que mag ñi ñuy wax li ñu war a jàng ci ñoom bu weesoo diine ji ñu indil li ci jiitu mooy fit ak ngor réew mi nag ku amul fit amoon ngor mënoo régler benn problème te ku bëgg a problème da ngay xool fi problème bi nekk fi góom bi nekk nga laal ko te tey ku ne xam na fi góom bi nekk fi góom bi nekk mooy ku nekk ci dëgg ñu ne la yaa ci dëgg ku nekkul ci dëgg ñu joxañ la ni la nekkoo ci dëgg kon ñun sëriñ bi tey dañ fay ñëw ci turu daara ji yépp ñëw fii ci turu xadara bi yëpp nag parce que fii ñun fii suñu kër la di wax ni nga xam ni président Ousmane Sonko bu doon day naxaate ñun mënuñoo nax bu doon day naxaate ñun mënuñoo nax parce que nit mënoo déglu mënoo jël référence ci Cheikh El Hadji nit di la nax ñi ànd ak moom mooy ñi feri nax ci réew mi buñ gëmoon nii nekkul ci dëgg duñu ànd ak moom bu ñu ci bopp ci boppam tamit duñu ànd ak moom mais daf ñoo woo ni kaay leen ñu ànd tabax réew mi loolu nag lañu suñ maam yi woowoon woon Seydi Hadji Malick loolu la woote woon kaay leen xam seen bopp kaay leen mënal seen bopp Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loolu la woote woon kon bu ñu gisee ndaw lu ko wootee di as gor di jullit amuñu droit bañ a ànd ak moom ñun li ñu boole ak moom du ay privilège yi parce que bëgguñu di ko wax waaye ku war ku yéeg ci ñay ba wàcc ko leneen dootu la saf moo tax sëriñ bi mu guddal mu gàttal réew mi yëpp kontaan nañ ci yow parce que réew mi yëpp ñàkkoon nañ espoir demoon nañ ba gëm ni méetu la wax li xew ci réew mi waaye koroog bi nga àddoo wan nga réew mi ni fa ndox daan taa ba tey boo demee fekk fa tepp-tepp doomu daara yépp siggil nga leen képp ku bëgg lu baax te sa xol bi lu baax rek nekk ci ba mu déggee gàgganti nga ko sëriñ kër Si nag sunu sëriñ yàlla nañu ko yàlla fayal moo daan wax ni ku am kilifa du gàggantikoo ci mbedd waaye ku sa kilifa gàgganti nga jël discours bi nga def damay wax ni histoire mënu koo bañ a bindaat parce que bu ñu naxante fii lu fi waay def loolu la histoire di bindal ak taarixu laa yarxam alaajab du mi nga xam ne bu ñu tuddee di ko tudd du moom kese moo fi moom moom rek moo fi ab sëriñ man mii fa ma jóge ay sëriñ la sama baay ab xalifa la waaye su may tudd moom lay tudd parce que dafa marqué histoire moo tax ñu koy tudd tudduñu ko parce que dafa sant si wala alaaji Maalik ko jur dañ ko tudd ndax taxawaay yi mu amoon ci réew mi tey nag gor ñëpp seen bët xonq na jaaxle nañ waaye ndokk ba ñu amee ku mel ni Serigne Habib Sy ci contexte bi am ku mel ni Serigne Abdou Mbacké ci contexte bi parce que man dama koy wax réew mi ñun duñu kenn mënuñoo xokkatal ci réew mi ci réew mi lañ dëkk parce que dañoo gëm ni réew mi li fi baax suñ maam yaa ko tabax moo tax sang bi ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci turu daara ji yëpp waaye ci turu parti bi xam ni Pastef famille la bu doon affaire séddoo rek yow xam nga ni ñun duñ ci dugg loolu ñun taxuñoo jóg waaye dañoo gis ne ay gor ñoo fa nekk ay jullit yu bëgg réew mi ànd ñu xam ne réew mi rek a tax ñuy wax ñu ñëw teg ci suñu loxo Ousmane Sonko it ñu fréquenté ko xam ne gor la jullit la réew mee ko ñor lépp lu la wax moo nekk ci moom kooku nag jàppale ko dañoo jàpp ni jaamu yàlla la fi may daaneelee nag si Malick man waruma toog sax sa kanam di wax parce que yow sunu sëriñ nga sunu kilifa nga man xadara bi su ma fi ñëwee dama war a bokk ci ñiy dem di di séddale kafe gi waaw parce que tool yii di jàk saa sama bàyyee ko daan bay Abdou Aziz Dramé kon mu gudd mu gàtt la Cheikh Omar Fouti yu waxoon rek laay wax parce que mag ñi li tax ñu daan bind bu ñu demee ba jamono ñëw coow bari mag ñi dañuy delluwaat ci seen mbind pour ñu orienté ñu Cheikh Omar Foutiyou Cerno Cernaabe moo wax lii may waaj a wax te baax na bayit boobu ñu fàttali ko sëriñi jamono parce que nag ñun ñi fi ne ñëpp suñuy kilifa lañ waaye suñuy nawle lañu amul kuñ ci mënta xool nag ci bët wax la liñ xalaat lii dëgg Cheikh Omar Foutiyou dañuy woon maa afsada diinu siwal muluuki wal ulamaai suui bil ufuuki mu ni société boo gis ñaar a koy tabax ñoo koy yàq mooy buur bu jeng ak boroom xam-xam bu jeng boroom xam-xam yi bu ñu jubee mën a orienté nguur gu bëgg a defar société boobu day jag tey ku ne xam la ni réew mi defar ko moo gën a yomb naan mbuusu ndox defar ko weesuwul ñi ne ci dëgg ñu ni leen yéen a ci dëgg ñi nekk ci caaxaan ñu ne leen yéen ngi ci caaxaan kon sëriñ bi fii du du tey sax ñëwuñu fi pour politique waaye mënuñu fee ñëw ba dem te duñ wax li xew ci réew mi man ku ma xam-xam ni gëj naa toog ci keppaaru ku ñuy tuddee nitu diine loolu mooy dëgg depuis Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabakh jóge fi parce que moom daf ñoo yar ba ñu ni ar li sëriñ Fall doon wax mu mu mu yar ba ñu ni nër loolu la sëñ Fallu doon wax waaw dañoo jàngal ba ñu ni ar mu yar ñu ba ñu ni nër waaye Cheikh Hadj Abdou Aziz ku ko fréquenté amatul droit def erreur parce que wax na lépp jëf na lépp la Seydi Hadji doon wax Seydi Hadji Malick ku ni njabootam nga lu jamono yàqu-yàqu war ngaa am foo taxaw yow pour mën a sauver situation parce que bi muy ñëw ci réew mi nag crise yi ñuy dund crise yi ko gënoon a garaaw la fi fekk mu dur ko ci xam-xam ak ci fit ak ci ngor kon crise bu ñu mënta résoudre amul fii waaye ku bëgg résoudre crise da ngay nangu fi tooñ gi nekk nga joxoñ ko ni lii ak tooñ la bëgguma guddal ñu ngi lay ndokkeel bu baax sëriñ bi li duuf ci nag wi xajul ci cin wi di ndokkeel suñ kilifa yi fi nekk sëriñ Babacar Sy Mansour hafizahullah wa ayyadu wa nasara ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi ñun doomu xadara bi lañ su ngeen déggee maanaam produit Seydi Cheikh Hadj Abdoulaye moom mi xam na li tax ma koy wax du wax ju may wax di sànni de waaw loolu day dëgg ñun sunu maam bëgguma di ko wax soxna Astou Cissé alaaji Malick ko yebee fii Tiwaawan yóbbu ko àndulaay moo jur sama baay man kon man produit alaaji malik laa boo gisee man xadara Seydi Alaaji Malick du ci tàggu kenn su ma ciy wax dama cee bokk te nanguma ku ma gën a xam kan mooy Seydi Alaaji Malick Seydi Alaaji Malik daan na wax sama kër santul si yàlla la sant képp ku bëgg lu baax te yéene ko topp rek njabootam nga kon si maa ngi jéggalu ci kàddu yi sax ëppal naa waaye nag dafa fekk ni lii ne ci xol bi moom mënuñu ko bañ a wax mbokk yu tëdd yu baax yi ñu bokkal jataay bi kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant di leen ziyaara di leen ndokkeel di ngeen ko defee jëme ko ci suñu jëmm ju xeebu ji noonu lañ leen koy delloowee ndax li xew ñoo ko bokk mooy bésu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa te ñun ñëpp ñuy ay jullit daje fi ñi jël jullit sax ci lañu bokk à forte raison que ñi ndax yàlla bind te lu mu bind yonent bee tax olof njaay nag mooy wax naan ku mënul yalwaan mën sotti sarax xanaa ku toll ndax yàlla bind la bind sa wayjur bind say maam bind lu mu bind ngir terale la ko bésam bu ñu la nee tey jii lañuy fàttaliku bés ba mu gënee àdduna war nga caa mën sànni doon doon doon ju xorom moo leen rëgët yéen ba indi leen ci barab bii barab bii nag dafa bokk ci seen ay barab mën naa teg sama loxo ci kaamil ma waat bu sama baay doon dund ñu ni ko sa ay njaboot yu ñuy tudde waa Pastef a ngi fi si te fii ci barab bi def ma fi fekk ay nit ñëw fi seet si ko maa ngi nettali dé te sama yaay fi la nekkoon jóge woon ndar maa ngi nettali nit ñi démb ma ne leen maa ngi fàttaliku gadog sëñ Abdul Ahad Mbakke yal yàlla yokk seen leer keroog bi mu ñëwee yendu sil góor bi bi ñu nuyantee sa mbàpp daf ko gàttandu ji fële ca biti ko ne sëñ bi egsi na sa mbàpp solul daal noonu la génn ci néegam dem ñu nuyante jàmm sant ndeysaan àndaat ak moom ñu jiitle ba dugg si fii sa mbàpp yóbbu ko ba ci chambre ak coucher bii ma nekk tey ji teg ko ci kaw lal bi waxtaan ak moom waxtaan ak moom ba ñu gindi konte góor gi ni ko nag kër gi tey moom yaay boroom man maay jàmm bi maa nga ca biti keroog sama papa duggaatul ci néegam ba bi sëñ Abdou Lahad jullee tàkkusaan pour war dellu Touba loolu fi la ma fekk kilifa gu ci wàllu diine ak ci wàllu àdduna ñëw na fii ma fekke sama baay recevoir leen kon bu ñu bokkee réew mi man ak yéen ngeen di doomi réew mi ci ndey ci baay amuñu lu dul Sénégal man ku ñëw di ma seet si dinaa ubbi sama buntu recevoir kon ma dalal leen jàmm ci seen kër gi di jéggalu sax ndax lii man la waroon maa waroon dem indi bouteille yi servir leen kenn ku nekk ma jox la ngeen naan fekk naa ba tàyyi sama baay defal ko ay nit loolu du wàññi ci nit dara rëy amul solo judd bu rëy jarul jaay loo rëy rëy rëy juróom-ñaari mètre per rek la ñuy def gas ba mu xóot ñu dugal na ci biir bàmmeel ku fa dugg xam ne ñëpp a yem dara du la topp kon tey jii su ngeen bàyyee seen i yitte xam ni ñoo bokk yonent bi ñoo bokk diine ji muy bésam waa magi Pastef ni ngeen ko defee woon bu yàggul ñëw seet si ma ca Dakar kon fii it mooy seen deuxième ville ci Sénégal kër gi ëppalewuma leen ci xam nga lu ma leen ci ëppale nekk gardien toog di leen xaar ak ñu mel ne yéen bu ñu ñëwee ma ubbi néeg yi bale ba mu set nekk ci seen service ba ngeen di ñibbi ñu àndaat ñaanalante ci jàmm kon bu ngeen yëgee ni gàmmu gi la ñu bokk ko bokk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngeen ñëw dox si tànk yooyu boole ceeg tànku kóllëre yooyu ngeen ma nettali léegi duma def lu dul bëgg ko encore une fois maa ngi leen di sant di leen gërëm te di ñaan suñu borom yàlla na ñu yàgg a daje yàlla na ñu yàgg daje yàlla na ñu yàgg a daje yàlla bu mu nekk suñu mujj daje di nuyu sama jigéen yu baax ñi ngeen àndal ak sama doom jële daan na ma jaay daraawu gàmm waaye bi yoon gisuma daraa yi moom laa ko doon laaj léegi ma ni ko ay waay an sama daraa yi mun ma ah yow ko papa yónnee wuloo léegi nag dama koy wax ci kaw xanaa loolu doy na yaay daba nu ngi koy nuyu bu baax a baax itam ak suñu jigéenu bopp bi yaay jaata ñu ngi lay ziyaar soxna Ayda bu baax a baax ak ñi ngeen àndal ñëpp di nuyu mbokk mi ñuy wax imam Dramé lañ koy woowe wax na dëgg mënoon naa nekk man fu ma neex moom mu dalal leen recevoir leen wax ci sama tur te kenn du ko dindi waaye lu sori laay wax moom xam na ci dara sama kàddu yi sax mënoon naa ñàkk ma bàyyi ko moom mu wax ba pare ma jox ko ni ko tontul ma te bu boobaa dañ koy valider ca maam ya la woon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu baax di la dalal jàmm sa kër fii la ak délégation bi nga àndal yépp di nuyu njaayeen bi ji dama doon wur wut sànq ba léegi mburu aw ma ma ni kon nañ la indil boisson rek ah, <laughs> Abdou Dia ani xale yi Ismaïla dégg ngeen ci de dem leen ngeen lu fi nekk rek njaayeen la damay bañ mu yóbbu moom moo tax bonbon ak miskit ak lu fi nekk rek indi ñu jox ko dawal seeti ko te ñëw di nuyu mbokk mi di mayaat moom itam daje woon nañu ca Dakar bokkoon na keroog bi ñu ñëwee di nuyu ah soxna Ayda di nuyu biram biram kujja mi ñu ngi koy nuyu am lu ñu waxtaane woon man ma nekk doomu réew mi man itam am sama ay gis-gis ci senegaal sama gis-gis yooyu nag li ma gën a bañ ku ma koy jéem a xañ mooy sama liberté d'expression nit mënu ko ci kër wante li ko waral moo di wéruwuma ci nit ne man ne yàlla laay dénk sama bopp man sama léppit santuma kenn nga jàppale ma ci nañ ma ko bàyyil sama borom mi ma bind lu ci jot rek su ma ko waree jox dina ma ko jox moom te sama der du ci yàqu te liberté googu naka jekk ba yonent bi ñëweek léegi lislaam noonu lay doxe daf daan wax yonent bi moom yàlla ni ko lenn laa lay ñaan mbooloo mi la topp man la soob rek ma def ci yow lu ma deful ci ñoom waaye da nga leen bàyyi xel nag parce que du ñu ay jàmm dañoo am xel comme yow di xalaat lu xewati bala ngay jël décision waxal ak ñoom bu ñëpp d'accord ci kàddu nga toppal ma majorité ba la ñu wax bu njuum sa naree am dinaa yebal jibril mu ñëw jubbanti waaye bul jël benn yoon sa décision parce que yow yaay yonent bi tout court non affaire bi du demee noonu kon ku dul yonent bi jaruta wax waaye mu wax ko ni ko itam boo xatoon xol di jaay yu amul ñu ni la fi ñama ñukk dellu si te bu ñu dellusee ma fatal leen sama bopp man yàlla mu ni ko nag bu ñu waxtaanee ak yow nga waxtaan ak ñoom ngeen échanger te li ñu la wax ñoom kon defal li nga bëgg kon yow te wéeru ci man bu jubul rek dinaa la ni jubul kooku ti bi laa wax de kon nit ku nekk am nga sa droit am sa xalaatu bopp ñu bokk ci réew mi nag xëy na la ñuy participer ci biir askan bi du lu bët di tegu parce que jaru ko ndax yàlla gëmmul nelawu kon bu ñu gisee loo xam ni jàpp nañu ni du noonu am nañu droit yëkkati ci suñu kàddu wax ni du noonu sëñ Abdoul Aziz bi ngeen tudd nag yéen a ko cité kon du ma ko sax tudd ban dafa joxe exemple bu ne ñu dund ak moom pendant quarante ans mu jóge fi sàngoo suuf ma jàpp ni bu ñu doon doyee di ba yegg fenn fi lu ñu ànd ak moom war nañu servir leçon ba bu ñu mënul mel na moom jéem a roy ay li mu fi bàyyi ci ay njàngale mësul boot di kenn ci Mali wax naa leen léegi fii ku ne recevoir na ko fi dafa am bés day am ay ambassadeurs yu fi ñëw ci war fi añ si maa doon jënd cendrier yi ñu doon toxee ak cigarette bi maa ko jëndi woon Thiès man maa dawal oto sa mbàpp yëkkati xaalis jox ma li ma kat am na ci ñoo xam ne dañuy jëfandikoo pon te comme ay ñu leen ko xaj billaahi alladi laa ilaaha maa ngeen jàpp foofu lay respecté nit yam waaw kooku tey jii biir këram man yi ñii laay dugal ak ñi ñëpp ku ñëw na ñëw ku bëgg ñëw ñëw kon ma nuyu leen ci turu magu Pastef yi dalal leen jàmm président Ousmane Sonko nag ma waxaat ko man nattu laa am ci moom maa ko bëgg ci sama xol billahi allazi la ilaha illa huwa xaw ma lan la mais maa ko bëggal sama bopp ci sama xol dama koy waxaat ci kaw ñëpp di dégg bu ma ñëpp dee bàyyi nañ ma bàyyi sama ceebu jën bi ma bëgg wala bu géej bi nga ni ma doo ko fi lekkee téyel sa dépense te bàyyi maag yàlla ma togg ceebu géej te dama jàpp ni rek ni am na loo xamante ni bii ku koy wax gor lay doo ko baax tey gor di ko yàq mu wóor la ni li ngay wax dara amu ci te Serigne Cheikh Tidiane si daf daan wax ni bëgg am raison bu mu tax nga sosal sa moroom mu gor lu mu def jaru ko fi yàgg-yàgg dafay feeñ yàlla gëmmul nelaw ñu ngi ko doon topp ak situation bi yàlla na ko ci yàlla jële delloo si ko sagoom delloo si ko ak wér-gu-yaramam bi jaahi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba li mu bëgg ci réew mi ni dama bëgg a bokk pour jiite réew mi senegal léegi dafa am ñu ñuy wax ni ñuy laaj ñii duñu bokk ku moom réew mi léegi xanaa boobu moomatuñu ko ñun may laaj te sa biir kër ñu ne la doo fi dugg wala bunt bi ngay jaar par la force y a un problème man waxuma waxu politique nag tey mais damay raisonner rek muy loo xam ni nag man ba léegi nattu laa ko jàppe nattu yàlla xam nga yàlla du coomo nag noo def mu seet ba xam ndax li ngay wax ci yow dëgg la walla du dëgg bis bu pay gay ñëw nag ci ngay xam ni ndekete yàlla du juum ndax waxoon na yonent bi ni ko wax ji bari na trop lu ne ñu ngi koy teg ci sa der waaye xam naa ni man mi la bind meloo noonu ndax maa la bind préparé la sama bopp wa innaka la ala kuy baax rek yaa ko gën mu ne ko nag sama mbir a demee noonu man doxuma ci ay principe doxuma ci ay logique sama bëgg-bëgg rek la moom yàlla mu ne ko am na ñu la fi jiitu woon doon doxal lii ngay doxal lu ne daj nañ ko di daj lu ko ëpp waaye bu kenn dégg sa baat ndax maa yore ndimbal te wóor na ma ni dinaa la dimbal wax jooju ci yonent bi la ko yàlla adressé mais mën na topp ku nekk ci yoonu jub mën na la topp fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul la ko yàlla waxoon moom sayyiduna muhammad mu ni ko muñal ulul azmi min ar-rusul ñu ngi fi woon lu ne daj nañu ko waaye sama mission fa ma bëggoon mu yegg fa yegg nañu fa kon yow itam muñal rek wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak loolu bu dalee ci kaw Ousmane waxoon naa leen ko ca dakaar ma répété waat ko da nga gis xale yi dugal benn vidéo boo xam ni mësuma woon xam ni sax Ousmane mën na loolu ci alquran fekk ma doon tari benn aaye bi moom itam ndekete wax na ko donc c'est un phénomène il faut la Sénégal nee nañu dëkk bu naqadee waxale naqadewul waxe de nit ñi dañu bëgg ku noppi man su ma gisee lu may wax dinaa ko wax ci kàttanu yàlla gannaaw ak yàlla jox leen ñoom ñu ma parce que ki may jugé te xamuma du ma tardé sama bopp nag parce que bu ñu daje woon ci mbedd man ak moom nii rek ñu janoo du ko ŋaan dail kilaaba tanbaxu wal qaafilatu tasir aw ma jotu tontante aw ma mais nag ci réew mi laa bokk ci kàttanu suñu boroom dama ni sama liberté kenn du ma ko xaj du ma tooñ nag waaye lu ma àndul dinaa ni lii du dëgg lu ma gis du noonu dinaa ci teg sama kàddu bu ñu ko jëfewul it dinaa ko wax keneen am na droit seet lu ko neex waaye loo ma sentir ni man mii lii tamit wax dëgg yàlla du nii gisewuma ko nii mais dama ciy wax was wax ci wasu ci ak ne serait-ce pour dégager sama responsabilité sama digganteeg sama borom kon ñu ngi koy nuyu bu baax Ousmane di feddali kóllëre suñu digganteeg moom di ko wax ni ko ñu ngi koy ñaanal yàlla miy tege nattu yàlla na ko teggi natt du continuer dafay jeex waaye fexe ba rafet ci nag dafa baax ndax ëllëgay tax te yàlla dafa waxul kenn dara yàlla moo mu teg natt boobu du soxara tax mu teg ko ci ndax bala mu ni nux nux dina ni war war waaye la ma waxoon rek gis nga ci réew mi ñuy wax Sénégal bu yàlla ne Ousmane day bokk nit mënu ci dara ñii nee nañu Pastef laa bokk ñii nii maa ngi ci patriote yi fuñ ma ci boole baax na nam mu ca yebu ca la rek ku la ca ba max nga jël ba ne sañ na ko bu fekkee ni foofu lañ ko gisee noonu ma ni kon léegi alhamdulilah bi ma waxee ca Dakar yéen ba pare dafa am ku ma yónnee vocal wax ma wax bu ñagas a ñagas nu ma waaw sëñ Habib yow nag vraiment man dama la soppoon jigéen la waaye ci dëgg-dëgg nag léegi danga nga fane da wane sa bopp ba ba sës nag léegi nëbbu tootoo mu ni ko yow foo far kon bu <laughs> mu nëbbu tootuma man xam nga fu ma féete ma ni ko ki ngay kaas kon yow foo foo bokk yow da nga bëgg bokk foofu te ni man duma bokk ma ni ko léegi faf naa bokk damay fay fës nag léegi benn yoon mu jeex parce que réew mi bu ñu ko toppee nii fa mu jëm du baax nañu bàyyi nit ñi seen ay conviction may leen seen liberté kenn ku nekk am nga droit ni lii moom a gënal tey jii bu añ bi pare woon njóobeen yéeg njaayeen yi xëy na xale yi mën nañu togg ñetti plat sebon bon ma ngi fi mën na nekk c'est bon njaayeen bi ni sebon laa bëgg xale yi togg ceebu yàpp man xëy na ceebu yàpp laa bëgg sama mbokk mi Pape Dieng lébu la xëy na ceebu jën a ko gënal. dañuy non kenn ko fi lekk ñëpp ci benn plat bi la ñuy lekk fu mu tege kon ci gàttal maa ngi feddaliwaat kóllëre ak moom di ko feddaliwaat ak yéen ak képp koo xam ni réew mi moo la ñor ñu bokk ay principe bokk ay gis-gis duma dellu gannaaw du ma daw ci gàttanu suñu borom lépp loo xam ni daal gis naa ni pour intérêt Sénégal la lu ma ci mën dinaa ci def sama wàll wax naa ko ba tàyyi nee naa leen du ma yàlla duma ma yonent xaw ma nu ñuy fale xaw ma nu ñuy follee waaye tabaarakallah yal yàlla may dund ak tal ak fekke ci barke yonent bi maa ngi nuyu bokki Pastef yépp mag ñi jeunes yi góor jigéen mag ak daw di ñaan suñu borom yàlla nañ ko fi dajawaat na gën di déwén Ousmane yàlla na ko yàlla génn ci situation yi mu nekk yàlla delloo si ko sagoo ma kattanam ba mu continuer mission bi muy nekk yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen déggee loo xam ne it xëy na njuumte la matadi rek ma jàpp ma koy jéggalu bu baax encore une fois di leen santaat ne leen gis naa teraanga yi yéen itam gis naa teraanga yi lii yëpp seen mbaax la wallahi seen mbaax la seen mbaax la rek ak yéene bu ngeen am yàlla mi am teraanga yàlla na leen yàlla yokk nga ba ngeen yëpp ci barke yonent bi mbokk mi ma xalaat ba yónnee ci almaañ di ma yónnee coupon basin moom itam ndeysaan xam naa dafa xam ni danaan sëñ bi dafa bari tiitar xëy na lool la waaye yàlla yàlla yokk sutura bi yàlla yokk teraanga bi dinaa ko sol insha allahu taala gëléem gi tamit dinaa def leen ci kàttanu suñu borom fexe ba jaami yàlla yi ku ci sa wërsëg nekk nga lekk ñëpp ñaanal Ousmane ñaanal leen yéen ñëpp yàlla nañ ci dajawaat déwén. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. imaam Dramé bii nag. ne imaam Dramé.